واجعله دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk téléspectateur yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan seen télévision almouridia ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi nag a Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides du ko ñaanal gudd fan ak wër mbokk yi neen ko xamee jootaayu beru la jëm nag ci bis bi nga xam ne kilifa gi ci boppam moo ko jàppal boppam dem rek ci ubbite complexe bi di Cheikh Ahmadul Khadim nekk fii ci Touba. loolu nag moo waral ba seen télévision almourdia dina ci sekk ay jotaay ak ay kilifa yoo xam ne nag lépp lu jëm ci organisation bi ba keroog bés bi di yéwén dinañ ci tàbbal seeni loxo tey jii nag ñu dalal kenn ci ki nga xam ne euh, ci ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi rawatina lu jëm ci wàllum organisation bi fexe ba bis bi lépp loo xam ne jëm na ca ci laataañu ñu caa egg ca keroog bis ba ba keroog ñu ci jàll ci leneen alhamdulilahi rabbil alamin lépp loolee moom moo koy taxaw muy jëwrin Serigne Youssouf Diop di responsable moral daara ji di Hizbut Tarqiyyah balaa ñëw sori rek dañ koy jox kàddu gi Serigne Youssouf Diop ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la dalal fii ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bu Touba. jërëjëf ñu ngi leen di fay tey jiital ci suñu kàddu ak cant ak ñaan suñu boroom lii nga xam ne ndigal la te ndigal suñu lépp aju ci suñu borom defal nu ci tawféex. ak ngattanu seexul xadim jërëjëf sëñ Youssou ni ñu ko junjee sànq rek bis bi euh, juróom benn la juróom benn fan ci weeru février euh, dëppoo ko fukki fan ak juróom ci weeru rajab bu tedd bi ñu nekk mu nekk bis boo xamee nag mën nañ ne lu jëpp lu lu ëpp ci organisation bi ci say yoxo lañ ko teg nga ànd kooku mbooleem kilifa yi nga xam ne ñenn ñi ci administration bi la yenn ñi mbokk taalibe yi la tey ji ci wattaay ana fu ngeen ci toll. waa jërëjëf. Euh, euh, jiitu googu ngay wax nag mm-hmm. moom li tax du jafe mm-hmm. ndax dafay loo xam ne mm-hmm. euh, ñi ko seq ñëpp ay taalibe yi Serigne Touba te ay taalibe yi Serigne lu ñu seq lu ne kenn ku ci ne sa morom da koy xool di gis ci moom Serigne bi moo tax ànd bi day yomb lool dëgg la Cheikh Mamadou Bachir ñu ngi koy sant tey ñaanal yàlla suñu borom fayal nu ko Euh, jottali na kàddu sëñ Muntaxa mm-hmm. wax ne euh, lu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa nañ ci jiital Hizbut Tarqiyyah muy aw sas mm-hmm. di ab soñ waaye fekk na Hizbut Tarqiyyah waajal boppam ba xam ne diggante Hizbut Tarqiyyah ak beneen kuréel amul dara lu fi dox ndax tur yooyu ngay gis nii mm-hmm. muy Hizbut Tarqiyyah muy Hisnul Abraar muy euh, Mafaatihul Bichri wala nga ne tur woo mën a tudd rek turu sëñ Tuubaa turu sëñ Tuubaa la te tur wu ne jëmm lay woo kon sëriñ bi lépp mooma mm-hmm. li fi ne nag dongo yi ñor nañ ci wàllu taalibe ba xam ne fi ñu toll nii mm-hmm. boole seen bopp mooy seen doole mm-hmm. ndax sëñ Abdul Ahad mu baax ma yàlla nañu ko dafa naan wax yàlla suñu borom amul xol waaye fu booleem jullit ñi boolee seen xol def ko benn rek mu jël ko def ko xolam yéwé na lépp kon defe naa noonu lañu ñu songee lii euh, li nga wax ci wàllu fonkeel gi nag ñoo ngi koy delloowaat cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ki ko moom dëgg-dëgg nag mooy cheikhul Khadim mu Mouhamadul Mountakha ni ko si Ahmadul Badawi mu baax mi waxee nee na dong yaa ngi koy sant dong yaa ngi koy kañ dong yi metteel nañ ko xam nañ ne kii mët na li mu doon dong yi e, ñu ngi koy ñu koy sargal fas yéene xam ne. fàggul nañu loo xam ne mënaluñ ko suñu bopp waaye tey jii su fekkoonte ne àdduna dafa doon ay xarnu dañ naan suñu xarnu bii tey jii sañ na sañ nañoo wax ne lislaam mi ngi puukarewu lislaam mi ngi ndamu ndax lii si du mun taxaa delloo si day muy cëru boppam ah mooy fonkeelu bis bi ndax bis la boo xam ne bis la ci bis bis la boo xam ne lu waay ñàkk-ñàkk xam-xam xam ne sëñ Tuubaa dina teew. loolu moom euh, lu nit ñàkk ñàkk xam-xam xam ne sëriñ bi. loo xam ne bëggu boppam la. ba mu batale ko ndax sëñ Tuubaa daf bàyyi ay ay ay yitte yoo xam ne. da cay liggéeyloo njaboot gi. sëñ Mouhamadul Bachir euh, moom seen Abdou Khadir wax na ko euh, am na téere boo xam ne sëñ Mbàkke Bousso bind na ko. ku ne xam na ne yoon wi nga xam ne sëñ Gaawaan ak sëñ Mbàkke Bousso. ak sëñ Mouhamadul Fadal demoon nañ ko penku ku ne xam na ne ndigal la sëñ Touba woon ku ne xam na ne euh, binaa um masjid Touba muy liggéey jumaay Touba ji bëggu sëñ Touba la woon bu mu ñaan suñu borom sëñ Mourou Moustapha moo ko tàmbali waaye sëñ Fallou ko ubbi yàlla ñu leen yàlla fayal waaye ñi fi toogal sëñ Touba ñëpp sëñ Abdoulaye ñëw na yokk ko ñëw nañ sëñ Saliou def na fi ab liggéey nga gis sëñ Abdou Khadir moo ko mës a jiite nga gis muy agsi ba bisu tey euh, sëñ Sidi Mokhtar jël plan yi nga xam ne mooy plan wu kër euh, euh, mu jàmmaw bii nga xam ne mooy jàngukaay bi daal di koy jébbal Cheikh Mamadou Mountakha kon xamoon na ne cërub sëñ Mountakha cër boobu nag képp ku jamonoon teeg moom rek war nga koo sargal war nga koo sant war nga koo ñaanal loolu moom mooy li gën a am solo woote bi nag man sañu woote ci wan ne dayob woote bi ndax loolu dalul sama wàll nun don yi laxasaayu rek euh, nekk ci organisation mooy sunu wàll ak nos ko waaye nag euh, lu nit ñàkk-ñàkk xam-xam xam ne sëñ Tuubaa daraam xajul fenn bu la fekkul nga waaj ba mu doon loo xam ne nu bis bi mën a toll it fekkee yow def nga ci sa lépp loolu dama yaakaar ne du mën a ñàkk moo tax kon nun ñoo ngi waaj waaj gi itam li ci jiitu mooy yaatal ko ba ñu xam ne du organisation wu Hizbut Tarqiyyah yaatal gi moo tax tey jii euh, si Ahmadou Badawi ak euh, euh, kuréel bi nga xam ne moom la jiite muy Rawdu Rayaahiin kenn jiituwu leen ci organisation bi ñoo ngi ànd ak ñoom ñoo ngi nos di def di gisee loolu du mën a ñàkk waaye tamit bi biñ jotee ndigal li rek fi saa si tàmbali ñu xam ne mu Muxaddamatul Xidma bu jumaa ji am nañu expérience ci yoon wi yor nañ ci position centrale boo xam ne mënuñu leen ñàkk tamit woo ànd ak ñoom ci comité de pilotage bi tey jii Touba ci kanam euh, woote bu njëkk bi sax jàmp na ba nañ ko waroon tasee lépp ak liñ ci waroon dugal defuñu ko waaye ku ne xam ne ne Touba ci kanam kenn du leen jiitu ci lii boo ji dax boo jëlee liggéey bi liggéey nañ fi ay liggéey yu mucc ayib def ko fii defal ko sëñ bi waaye ñoom itam dañoo doon kuréel boo xam ne nii Hizbut Tarqiyyah taxawee ñoom ñu taxaw ku ci ne dina am loo mëne mun koo mottali sama morom loolu kon na ngeen xam ne noog ñoom ñoo koy ànd euh, di sant sëñ Habibu tamit ci ubbiku gi ak yaatal gi ak ni nga xamante ne noonu la ñu nangulee ñu mën a xam ne ñoom ak ñun amul amul amul amul amul diggaloo benn lañu boo jëlee tamit euh, tey jii nga jël université bi ku mel ni sëñ Abdoul Hadka ñu koy sant ndax jiite na commune bi waaye entreprise bi nga xamante ne tamit moo gën a mag ci entreprise yi exécuté fii euh, ci ndigalal sëriñ bi moom yamu ci nun ñi ñëw nekk tàmbali aménagement yi lu ñu soxla woon mi ngi koy ànd ak loolu it war nañ ko wax sant ci bu baax profité ci itam ñi fi sëriñ bi teg ñu tàmbali ci sëñ cerno sëñ maam Thierno mu sëñ Mouhamadou euh, sëñ Moustapha Bassir euh, doon ku ku ku jàmbaare koo xam ne itam fu ndigal jibee rek amatul sago ñoo ñëpp fi ñu toll nii ñoo ngi koy ànd ak ñoom ak tout le personnel de l'université loolu kon dama bëggoon rek tàmbale ko wane ne li ñuy def lu open la lu ubbiku la euh, ku ku ku yaakaar ne it doona lu ñu la ci dara rek yaa ko yéexee waa wilaya contacté nañ leen incha allah comité de pilotage bi buñ ko abordé wala ñu toog réunion di nga gis ne dina doon lu hétéroclite ñëpp ciy feeñ. ñëpp nañ ci gis seen bopp ndax loolee tax organisation bi mën a mujj ayib mucc ayib. dëgg la sëñ Youssou ni nga ko junjee rek mooy mbooleem mbokk taalibe yi nga xam ne liggéey bi seen liggéey la. ñu war ci tabbal li nga xam ne moo di seeni loxo waaye nag daa mel ni am na pàcc boo xam ne nguur gi la soxal muy tey ji lu mel ni euh, corps administratif bi dooree ko ci sous préfet préfet ak service technique yi nga xam ne dañoo nekk fii ci dëkk bi fas yéene dugal seen i loxo ci li nga xam ne moo di wàccaay bi tey jii seen lëkkaloo ak nguur gi ak banqaasu nguur gi nga xam ne ñoo nekk fii nu ana nu mu demee. waaw loolu li ngay wax ni euh, lépp lu jëm ci sécurité publique euh, dafa doon loo xam ne civil yoru ko loolu moo tax sëñ Cheikh Mouhamadoul Bachir. Mm-hmm. Euh, bi mu ñu joxee ndigal li jot lu ñu ndigalal sëriñ bi jàppale nañ euh, woo na gouverneur mettre nous en relation ñu commencé liggéey ak euh, préfet département bi ak tamit arrondissement bu Ndaam ñoom ñëpp ñu saisir tamit tout le commandement territorial waaye ñu saisir tamit chef de service yëpp mm-hmm. ndax bis la boo xam ne c'est un grand rassemblement grand rassemblement foo gisee rek sécurité dina taxaw waaye am na yeneen yoo xam ne day taxaw ci wàllu aménagement ci wàllu communication ci wàllu social ba ci ndox mi ak euh, lépp loo xamante ne mooy tax nekku nit ñi mën a yëwén mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéeyandoo ñoom mm-hmm. en étroite collaboration mm-hmm. ndax am na ci loo xam ne wàllu état la am ci loo xam ne nun donge yi noo ko war a def ndax toggi añ kenn du ko def loo état nun noo koy def su fekkee ay gan bàyyikoo nañu fii ci barab ñu dalal leen taxawu leen topptoo leen loolu ñi ko war a ànd ñu ngi koy ànd loolu lépp kon defe naa euh, li ci am solo rek mooy répartition des tâches tey jii eh, fi ñu ci toll ban appréciation ngeen mën a am bu nekkoon ne benn évaluation la à mi parcours à mi chemin boo xam ne dañ koy def ci réponse bi nga xam ne moo war corps administratif. waaw li ma seetloogum mooy xel mu dal mm-hmm. waaye tamit euh, bañ naagu ndax xam nga xel mu dal mooy mm-hmm. euh, dongo yi bëgg nañu sëriñ bi mm-hmm. te itam wooteem duñ ko tànqam loolu ñun gis nañ ko. Euh, boo ko seetloo. Euh, njabootug sëñ Ahmadou Badawi gi nga xam ne mooy waa Rawdu Rayaahin. guddeeg bëccëg ñu ngi ànd. waa Muxaddamatul Xidma ak ñii ma tudd nii. waaye tamit euh, dama ci profité di wax ne mbooleem ñi réaliser ay ouvrage fii ci université bi. Euh, jàppalee ko sëriñ bi. ñooñu ñëpp fi ñu toll nii am na ñoo xam ne gis nañ leen am na ñoo xam ne ñu ngi ci yoon wi di ñëw. ñooñu war naa leen profité yi tudd ko. ndax boo jëlee. ñi nga xam ne mooy industriels yi. ñi nga xam ne ay ay ay investisseurs lañu. Mm-hmm. doon ay taalibe Serigne Touba. gis ne loolee ñu yor war nañ caa mën a lëkkaloo. jàppale Serigne bi ñooñu tamit boo xoolee Serigne Mbaye saar jiite ko. Mm-hmm. ak ñam ko àndal ñëpp. Mm-hmm. ñoom ñu ngi jokkoo ñun fas yi ne tamit bis bi lu luñ ci mën ñu def ko ci. ndax boo jëlee aménagement yi rek boo jëlee li Hizbut Tarqiyyah am ci dispositif aménagement doo ci yamale bis bi. ñun dañuy luwewaat dolli ci am na ñoo xam ne dañuy indi seen jumtuwaay daal di wax ne man luwewuma ko dama ko able ngir sëñ tubaa ndax sëñ tubaa moo ko soxla ñooñu loolu am na ci euh, euh, ñii ma tudd nii tamit investisseurs yi dinañ indi li am euh, boo jëlee tubaa ci kanam si sëñ Habibu ma koy santaat moom itamit wóor na ma ne lu mu gis ne soxla nañ ko ndax camion yeeg gradaire yeeg li doon defar kii waa UGB ñëw nañu waaye moom itam lu ñu laaj rek ñu def ko loolu tamit ñu ko ci profité di leen sant bu baax am nañu commerçant Touba yi am nañu daayira boo xam ne am nañ fi liggéey bu ñu jël am na ëllu suhada muy tamit soxna sooda xuma di jàmbaar lool may profité tamit di ko woo ñoom ñëpp ñu xam ne bis bi seen bis la ndax sëriñ bi liggéey loon na leen te day ubbi waa am na Taysiroul Assir am na ñaar am na Taysiroul Assir boo xam ne mu ngi nekk euh, Montpellier France waaye am na Taysiroul Assir boo xam ne tamit moo nekk euh, Thiès mu école polytechnique ñoo ñëpp bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon taxaw ay liggéey boo jëlee tamit suñu sëriñ sunu xarit sunu lépp muy sëñ Cheikh moom sëñ Abdoul Hakim liggéey bu mucc ay bi mu liggéey fii diggante euh, jumaa ji mu fi def waaye yamu ci lu bokkul ak jàkk yi liggéey na tamit pajukaay euh, boo xam ne bu yaatu la loolu boo ko jëlee jël aussi le ministère de la formation professionnelle hmm. ndax am na barab bu ñu fi liggéey boo xam ne hmm. loolu dëgg la wàllu état la waaye nit ku ne la nga jëf lañ lay sante hmm. kon loolu tamit euh, ñu xam ne bokk na ci ñi réaliser ay ouvrage fii ci biir université bi ak Hizbut Tarqiyyah muy liggéey këru xaside yi loolu lépp kon ñooñu nañ ñëw rek ànd doon benn taxawu bis bi mhm. ba sëriñ bi am li mu bëgg mhm. bis la daal boo xam ne balaa nga naan sëriñ bi fonk na ko danga nga naan sëñ tubaa fonk na ko ndax lu ko jaraloon mu bind ko mhm. te sëñ tubaa day jëmm joo xam ne lu mu bind lahul mahfuz la ko jëlee ak tubu naaqilan min allawhi wa min qalami wa fii la lam amit kon ba muy bind naan bi mu safaa lii ba naan xudduusu madrasatan bi yaa yazulul aza wal jahlu wal kabadu keroog la ñaas ci la mahfuz sëñ Muntaxa koy liggéey kon ñi mu jamonoonteel bis boobu bu ñu ko yemaleeg benn bis nañ ko jàppee bisu bisub kañu nañ ko jàppee na bis la boo xam ne iblis day yuuxu di dem ndax bihaa yazulul azawal jëxlu wal kabadu mm-hmm. lor bu demee mm-hmm. ah ak riir dem mm-hmm. coono dem xam nga ne moos xéewal taxaw na kon loolu moom ku ne am nga ci sa ku ne am nga ci am cant lii moom laa gis ne boo boo bëggee jël dimension bis bi rek doo ko àtte ci leneen lu dul fonkeel gi ak Serigne ak sell gi mu war a sell loolu moom defe naa moo ci jiitu. jërëjëf jërëjëf ñuy fàttale mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision almouridia Serigne Youssou jóob lañ dalal muy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah waaye itam jiite comité d'organisation bi nga xam ne mooy taxawu lépp lu jëm ci inauguration complexe culturel Cheikh Ahmadou Khadim ñu nekk ci makkaan bi sëñ Youssou tudd nga sànq mbooleem mbokk taalibe yi ay tur la yoo xam ne jëmm lay woo muy Cheikhul Khadim moo xam rawdu rayaaxin la moo xam xidmatul xadim la ku mu ci mënti doon tey jii nii mbokk taalibe noonu nan lañ mën a fësalee seen yéene ci bis bi waaye muy doon loo xam ne day am résultat ci ni nga xam ne euh, organisation bi tëralal ngeen ko noonu. waaw loolu moom euh, am na comité de pilotage buy liggéey. ndax euh, soxla nañu ak jàppale ci aménagement yi. Mm-hmm. soxla nañu ak jàppale ci lal laltu yi ndax mbooloo mi fi ñu nekk loolu du mën a ñàkk soxla nañu euh, ak jàppale ci li nga xam ne moo jëm ci luy tax ñu taxaw gan yi euh, soxla nañu ak jàppale ci li nga xam ne mooy dispositif de sonorisation soxla nañu ak jàppale ci li nga xam ne mooy écran yi ndax mbooloo mi jaaduwul ñu aménager noo xam ne ñëpp lañuy raj rajloo ku ci ne am na fu ñu la waajal ndax di nga gis ay structures yu mag ñu defar yoo xam ne. Mhm. personnel bi nekk ci biir université bi. Mhm. ak dongo yi nga xam ne mooy xale yi njëkk yi sëriñ bi war dalal. Mhm. ñoom fa la ñuy am na fu ñu waajal sëriñ bi ak i bokki boppam yi. am na fu ñu waajal yi nga xam ne moom mooy les autorités. mooy le corps diplomatique. wala état bi ñi fi teew. loolu lépp fu ci ne. faw nit ñi respecté loolu te na nga xam ne service d'ordre na fi am pour respecter loolu. te itam li may soññaat sama bopp di ko soññ dongo yëpp bis yu mel nii ginnaaw dañ ñuy defaral nun dongo yi bu ñu xëccoo gan yi nun daal fu nu mun ne euh, bu fekkente ne mënuñoo ñàkk ñëw rawatina waa Touba nañu xool laajte fa jigéen ñi ne ñu ne ñu xam ne jigéen ña fay ne fi góor ñi ne ñu xam ko yan bunt la ñuy duggee loolu lépp dafay loo xam ne am na ay plateau yu spécialisé yoo xam ne dina ko leeral ci almouride di wax ak a waxaat ngir nit ñi dégg képp ku yaatal wala nga dimbali nit ñi ci ci ni ñuy nekkee mhm. na la wóor ne jàppale na sëriñ bi mhm. waaye boo bëggee wane sañ-sañ ci ne man damaa war a dem barab sàngam mhm. damaa war a jege fa sëriñ bi ne wala nangam loolu moom yaa indi xat-xat ndax gan yi nga xam ne këri diine yi kilifa yooyu ñooñu ku ne xam na ne waruñoo sori sëriñ bi boo jëlee ay gan yoo xam ne am na ñu bàyyi ba bitim réew moo xam Mauritanie nga xam ne am na ay professeur d'université yu fay bàyyi ko ak ay kilifa yoo xam ne njiital réew mi mën na leen yebal ñooñu bu ñëwee waruñoo sore sëriñ bi xale yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy dalal nga jël lu jege junni xale maanaam téeméeri xale ak ñi leen di encadré ñooñu mënuñoo sore sëriñ bi su ko defee nag nun suñu nun sàmb sorot gay si nga xam ne sëriñ bi yóbboonu moonu dimbali yóbbaale ñu ci bis bi nga xam ne buñ buñ ko fekkewaatee yow mal xiyaam mu dellu si cër yi gën a kawe la ñuy am la ñu ko may kon nan ko mottalee yar ak teggin ak bañ a xëccu dara euh, boo amee lu la jomb ni ngay ni ngay ni ni ngay ni ngay santee mooy da ngay da ngay yaru yàlla moom kenn ko santee lenn lu lu yaru boo yaroo yem fi ñu la yemloo ndax Sëñ Blaat dafa ne dafa ñu jàngal lu bëree bëri bëri bëri dafa naan wax ne doomu aadama dafa war a bàyyi xel nan la war a sante yàlla suy borom ñu ne ko nan lay sant yàlla mu ne yàlla dafa bind yett bind yaar yett yi mu bind dafa bind doomu aadama bind malaayika bind bàyyi ma mooy ñett yi ñaar mooy xel ak bànneex mu jël yaar yi yëpp nag boole ko jox doomu aadama jël xel képp jox ko malaayika jël bànneex képp jox ko bàyyi ma mu ne doomu aadama bi boole ñaar yi nag bu toppee xelam taxaw taxawaay malaayka bu toppee bànneexam taxaw taxawaay bàyyi ma mooy asfala saafiliin su ma la doon naaw asfala saafiliin waaye nag mu ne bu toppee xelam nag mu ne lan mooy topp xel mu ne laa yaxsanu laahu maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun lu ñu la digal nga def lu ñu la tere nga bàyyi moo tax taxawaayu taalibe mooy taxawaay bi gën a kawe bu ko kenn doyee dal bu ko kenn xeeb jëfe ndigal bàyyi tere mooy yëf yi jërëjëf suñu su defe naa ne euh, kàddu yi leer na am na ci loo xam ne sax taataan nañ ko kàddu cant lay doon mu mel nii lu bokkut ak jiite comité d'organisation bi am na loo xam ne seen mbiru bopp la nekk ci biir euh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim mu ngi koy xës day euh, tey jii nii bu ngeen siggee seen bâtiment bi taxaw ca kaw ngeen fekke woon bi ñu koy naal te xeer wi ñu ci fàttaliku bu baax a baax sëriñ Atou Diagne ñaan suñu borom dolli ko yërmande ak njégal tey jii nii lu bokkut ak jëmm complexe bi waaye muy sas boo xam ne naal boo xam ne yéen a koy barkeeloo ci liggéey bi kim kattan di ci di ci xëy bis bu nekk di ci gontu ba mu àgg si fii ngeen am ci yéen mébét am ci yéen yéene tey jii nii euh, bu ngeen taxawee seet liggéey boobu càmbar ko fi mu toll fii ana ban yëgee ngeen ci am. waaw xanaa sant rek. ndax Sëriñ Tuubaa moom ku mu liggéeyloo. moom ak cant rek nga dese. te cant gi nga def ko jëf. waaw moom ba a dese noonu ndax wax jëfu ko gën euh, këru xasida yi ba ñuy jëkk naal li nga xam ne mooy plan wu université bi ba wax ba annoncé sax le coût global daal di wax ne trente sept milliards la boobu këru xaside yi bokkul woon ci plan bi waaw bu ñu fàtte ne sëñ taxaa ñëw na fii yoon woo xam ne ba mu fa dikkee euh, ndeysaan di wax ak sunu jëwriñ ja sëñ Atou mm-hmm. yal nañu ko yàlla fayal mm-hmm. surtout yéeneem. Mhm. ndax sëñ Muntaxa ba mu koy sant këru xaside yi mhm. nee na ko ba juróom benn fukki million ngeen fukki million la ñu waxoon mhm. plan waaye may naa la nga def ko ba juróom benn fukki million ndax xam naa da nga xër waaye fi ñu toll nii sëñ moom dafa mujj change plan yooyu yëpp daay na këru xaside yi la ñu wax nañ def loo xamante ne fii trois cents ans ku ñëw da ko fi fekk trois cents ans xëy na mën nga yeesalaan mbubb yi ndax jamono day dox Euh, këru xaside yi moom fii ñu toll ci liggéey weesu nañ deux milliards yi ñuy wax ndax euh, rajee képp bañ ca tolloo rajee képp bañ ca tolloo boobu multiplier nañ par par dix li sëñ bi waxoon mooy soixante millions yi rajee rek ci suuf te loolu dañ koo suul loolu feeñul bokkul ak suusal kon fi ñu toll nii édifice la boo xamante ne ku ko ñëw xam ne bijou la waaw fleuron la te it loolu xaside yi loolu la yelloo ndax xaside yi moom la sëriñ Touba wax ne moom euh, lépp lu mët a def ci yoon wi mu ngi ci xaside yi xanaa xamoon ne fi ñu toll nii victoire yi sëñ Mountakha di tegale di dem ak victoire bi sëñ Touba am ci yoonu géej gi mais da may wax kan moo àndoon ak sëñ Touba dem kenn àndul ak moom dem waaye xaside yi xaside goo gis euh, jëmm la joo xamante ne mm. takk ndeeram lañuy lañuy jëf leen dellu noonu fii ci kaw suuf takk neeram di faj suñu aajo. Hmm. waxuma la ak jëmm ci ndax danaan la samay xaside yi yi mu ngi aras di nga aras wala mu ngi kursi yu hmm. wala nga xam ne kon sëñ Tuubaa bi mu xamee ne yàlla suñu borom mooy def di dindi hmm. moom la seqal lu mët a fàggu fàggu na ko lu mët a ñaan ñaan na ko te suñu borom nangul na ko mais kon xaside yi pajuk aajo la fonk gi képp yor ko di ci def parfum day faj aajo day texel day def lu ne waxtuma la ak di ci barkeelu di ko jàng ak di ko sell kon xaside yi këru xaside yi moom ku ne am na njëkk rek xamoo dara moo tax sëñ Muntaxa bi mu fi mu jëkk si aatu daf ko ne su ngeen ko defee jamaa wala or wala jamaa sax xam ne ne ànd naa ci yéen ba bu waxee loolu nag ci la roof ndimbal loo xam ne ba bisub tey dara lu jafe gisaguñu ko fi ñu toll nii ñoo ngi toll ci phase revêtement extérieur lépp luy génie civil pare nañ ci lépp luy attente ak tirage cable ak lépp luy réseau informatique ndax ce sera intelligent dafa doo bàyyi dara lépp loo xamante ne côté sécurité daf ko war a bàyyi xel rek mu ngi ci biir waaw kon lépp loo xamante ne itam ERP war na ko bàyyi xel doo ci cof dara waaw kon euh, bâtiment la boo xamante ne incha allah balaa yàgg mm-hmm. dinañ ko jébbal incha allah ndax euh, ñoo ngi ci phase bi nga xamante ne toutes les autres commandes qui moom la ñuy fexe finaliser ko pour mu doon loo xam ne incha allah pause yi rek lañ nekk moom diggante ascenseur yeeg ak li nga xam ne moom mooy euh, lu jëm ci climatisation yeeg lépp lu jëm ci mottali marbre yéeg ak lépp lu jëm ci euh, moom daal mottali ñu ngi sant bu baax jërëjëf dëgg la fi mu toll nii xam naa ne euh, laaj bi day gën a dem ci gëstukat bi mooy xam nañ ne naka jekk Hizbut Tarqiyyah ci gëstu lañ ko xamee bi ngeen nekkee étudiant ba fi mu toll tey jii nii euh, bu ñu xoolee complexe bi li tax mu doon complex tax bañ nekk université mooy fi muy dooree door ci tout tànk yi ba keroog ñuy def étude supérieure euh, du point de vue apport maam loo xam ne day dolliku ci système éducatif bi euh, ban taxaw seetlu wala boog ban jàngat ngeen ci am ci xam ne lu bokkut ak lu baatine waaye loo xam ne rek dañ koy takk ci xel yi dañu xam ne lu particulier la lu beru la muy complexe Cheikh Ahmadul Khadim waaw jërëjëf laaj bu bu am solo la euh, mën nga ne Cheikh Mamadou Mountakha posé na act boo xam ne dina bouleverser le cours de l'histoire au Sénégal mm-hmm. et dans le monde ci parce que mm-hmm. euh, université mooy enseignement supérieur. tey ji Sénégal lépp loo dégg ñu di ko jàmbat ci éducation. ci système éducatif bi. mooy dafa doon dafa dem ba muté wu doon muy système d'enseignement mais nekkul système éducatif. parce que enseignement c'est la transmission des connaissances. day yàlla xam-xam ni mais éducation day yar nit dugal ay jikko Sëñ Tuubaa noonu la daan def. da jàngal yar la liggéey loolu. Euh, boo gisee sëñ Muntaxa nii mu def tàmbalee ko ci alxuraan gis nga alxuraan ku mu nekk ci sa dënn euh, dafa mel ni xam-xam yi am njëriñ yépp mi ngi ci biir waajal nañ la ba nga doon koo xam ne euh, bokk nga ci ñi doomu aadama yi war a ëpp yaakaar mooy ñu mokkal alxuraan moo tax suñu borom wax ne xayrukum ñi gën ci yéen mooy ñi am ñi mën alquran te di ko jàngale loolu élite lañu sëñ Muntaxa jël yoonu murit njabootu sëñ Tuubaa gi kër gu ne mu jël fab lim ci seex yi kër mu jël fab boole ñoo ñëpp am ñu jël ci dongo yi ba ci ñun Hizbut Tarqiyyah am nañ tawféex yi jël na ab lim dugalaale ci biir loolu mm-hmm. nun ñu muy ak cant koo xam ne ñun xamuñu sax nuñ koy sante waaw lim boobu nag mooy ñi ubbi lii moom sëriñ bi mooy ñëw ci bis bi dalal leen donte kenn la dalal wax ko baa ñi fi nekk àggale ko loolu moo tax man na euh, sëñ Mountakha vient de marquer une rupture dans le processus de l'histoire tey jii loolu ngay gis ni dina ubbi benn benn air bu bees boo xamante ne euh, yàlla suñu boroom dinañu xëpp ngërëm dinañu xëpp ndimbal dinañu xëpp yërmande la sëñ Tuubaa defoon ci mag ñi mu àndaloon te muy loo xamante ne dafa soppi jamono ñu dem ba mu yàgg ñoo ñu bàyyi fi ak njaboot waaye njaboot bu doxee tuuti faw ñu yeesal boo yeesalul barke bi mooy des waaye dafa mel ni yitte ji ak pas-pas bi ak xam-xam bi fi amoon day mel ni dina am tuuti euh, lu mu lu ci wàññiku loolu nag moom la si mun taxaa di jéqiwaat di ko yeesal su ko defee dañuy amaat une nouvelle génération boo xamante ne bu yees peq yoo xam ne la woon ci seen i maam te sëñ Tuubaa defoon ko ci ñoom ñoom ñooñu boo leen xoolee di nga xam ne dara jógu fi ñoom ba ñuy dem yóbbuwuñu seen ngànnaay seen lépp lépp lépp lañ fi bàyyi kon tey ji ku baax jur la am na njëriñ lool sëñ Abdoulaye daan na ko wax waaye amee mbaax gaa ca am solo xam nga amee mbaax gaa ñu am solo te foofu barab bu mel nii nii sëñ taxaa def moom mooy dimbali ba mbaax gi woon ci ñu àndoon ak sëñ Tuubaa hmm. tey jii mu yeesaat bu dul loolu ku baax mën na laa jur nga yor barke bi hmm. te mbaax ga ak tarbiye gi hmm. ak ak bañ gi lu bon ak xam gi lu baax bëgg lu baax ak di ko digle loolu mën naa bañ a tolloo waaye di bàkkoo rek ne euh, sama maam moo def lii yow itam nga def dara baax na baax na moo gën loolu kon suñ muntaxaa mi foofu la ne boo gisee muy faral di soññe naan bu leen ci kenn mag baat boobu muy wax dafa xam ne euh, ñu àndoon ak yonent bi saa salaam sax bi sëñ Tuubaa dikkee ak ñamu àndaloon nanguwul moom man jëlale naa sëriñ bi ñamu yaroon nanguwul saxaaba yi nañu meloon ak yonent bi ñu raw ñu raw leen xam nga nanguwul moom sëñ tubaa ni mu yaree waa euh, loolu loolu nag daf ko fee bàyyi bàyyi fi xasida yoo xam ne tey jii ñi gënoon a màgg ci kubaraaw yi ñi gën a baax niñ doon yaree nit ba ba ba ba def ko nitu yàlla mm-hmm. loolu moom xasida yi sax dañ koy def naabat kitaabat yi mm-hmm. anil xitaal yi mm-hmm. naabat kitaabat yi ah, eh, ani nawaafil yi naabat kitaabat ah, ani ladaa ahli kitaab ani suyoo fi war rimaahi la ay taab mm-hmm. naabat kitaabati yi dul jeex mm-hmm. nga xam ne xaside yi lépp la remplacé ci loo xamante ne lu baax la woon lislaam di ko puukare woon mm-hmm. kon fi ñu toll nii moom ku bëgg a baax mën ngaa mën naa ne ci keppaaru sëñ Muntaxa ku bëgg gën sax mën naa ne ci keppaaru sëñ Muntaxa kon euh, c'est c'est c'est une rupture c'est un point de fracture dans l'évolution de l'histoire sëñ Muntaxa mi moo ko def moo tax may la sëñ Muntaxa ci ñu ci ñu ñi la bokk dañu ko indil waaw muujizatan ta ak xarat ak xarat mooy waa Kër Sëñ Tuubaa yi waaw loolu kon ñun dong yi nañ sant rek te xam ne li ñu am kenn amu ko jërëjëf xam naa ne dañuy tënk foofu jotaay bi Sëñ Yuusu xam nañ ne farata yi bari na xëy na rek kàddu gu mujj goo xam ne ci ngay daanelee say say say say communication waaw kàddu gu mujj gi daal man mooy ñaan sëriñ tubaa mu dimbali ñu ci melokaan wi mu bëgg ab taalibe yor ko ndax sant ko war nañu waaye lottu nañ ci te sëñ tubaa kenn mënu koo sant ndaredu da ngaa futti ko mbubbum àdduna wan ko ginnaaw soobu nag fas yéene sàkku ngërëmal sëñ Touba yoon woowu rek lañ ko mën a lañ ko mën a defalee dara waaye sëñ tubaa du ku ñuy fàggul dara boo ko doon wooteel ak cant boo xam ne àdduna sépp danga leen invité ñu ñëw it boo mënta bàyyi lu bon taqoog lu baax sëñ Tuubaa amul ci soxla kon yëf yi du du du du du bruit bu bare boo xam ne dañ ko war a yëkkati waaye aw melokaan wu ñu war a incarné te yar ci njaboot gi man daal lii laa gis yàlla nañ ci yàlla gën a dimbali mm-hmm. ñu am melow bu tax mm-hmm. moom sëñ Tuubaa gën ñoo boole ci ñooñam jërëjëf amin amin sëñ si Diop amin ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di fàtte mbokk yi nga xam ne ñooñu setaan ñu ngi doon dalal Serigne Youssou Diop di jëruñ daara Hizbut Tarqiyyah waaye taxaw fii ci beneen euh, ndombal tànk mooy taxaw lépp loo xam ne day jëm ci waajal bés bii di ubbite complex culturel Cheikh Ahmadul Khadim nekk fii ci tubaa mu nekkoon nag euh, édision spéciale boo xam ne seen télévision Almouridiyyah ci lañ fas yéene wéy ba keroog ñuy àgg ci bés bi muy juróom benn fan ci weeru février dëppoo ko fukki fan ak juróom ci weeru rajab bi ñu nekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wajanu daaban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi